Le village de Ndiakénan euh, se situe à l'est de la commune donc euh, vers à quelques 6 km de la, commune, donc de Mbédienne, qui est le chef-lieu de la, commune. Euh, donc, euh, et se situe aussi à 13 km de Louga, la capitale régionale. Donc euh, le village aussi est habité par des peuples, donc qui mènent des activités d'élevage et agriculture. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أرس أوتادا dañu tew tey teewal sàkku yiw pour inauguration école bu fa tabax ci loolu man sama kaddu du bari incha allah damay chef de maa ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di nuyu monsieur le maire ak adjoint bi mu àndal ak délégation bi mu àndal yëpp di nuyu sama mbokk yu fi daje yëpp ñu ci école bi ñuy ubbi tey sunu école daara bi léegi nag waa ca Thialéni ci teen lañu ñu commencé woon fii ci njëkk naan gasal nañ ñaari teen dañoo fekkoon ñu mar lool lool lool lool mar bu mét yàlla ci mbaaxam itam mu jële leen ñu ñu ci ekol bi biñ fay ñëw itam ay xamuñu woon dara ci wàllu alxuraan tey xale yëpp alhamdulilah jàngal nañu xam nañu nu jaamoo yàlla yóbbaale nañ nu ñuy nun seeni baayo waajur itam bare na luñ ñëw fuñ ñu jëlee tey ci sunu réer ñoo ngi sant ñi nga xam ne ñi ñoo nu jàppale muy waa sakku yiw ñoo nu jàppale nañ ñu jëlee nañ ñu ci réer ñu ngi nu teg ci yoonu xam-xam ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal fo lépp lu ñu yootu yàlla na leen ko yàlla yombalal. ustaas yi nga xam ne moo ngeen fi yebal di ko fay nun fayuñ ko ñaari dem yéen a koy fay ci seen xaalis. waaw sama doom a ngi jàng yàlla def naa ci sax bu bu yaatoo yaatu daa ci différence bu yaatoo yaatu noonu nag waaw boobu dëkk bi mooy suñu dëkk dëkk wolof yi waaye ñaar dëkk it benn dëkk la kon loolu dama mënul def loolu rek sant euh, bon njàng mi wax dëgg yàlla barkal masalla ndax njàng moom wax daal gaaw na xam nañ njàng mi gaaw na kon nag ñoo ngi sant rek waaw njàng moom man dem ma sax jaaxal na wax dëgg yàlla dama ci xam mbetteel yéen de wax dëgg yàlla école bi bëgg nañ ci lool noo ngi bég noo ngi sant ndax wax dëgg di gën a daaw bi mu fi ñëwee ba léegi xale yi kenn taxawalootul ñu ngi jàng bu ñu xëy ci école bi ci la ñuy xëy ci la ñuy wax dëgg yàlla bëgg nañu njàng mi lool kon ñun mënuñu mënuñu a fay ndax wax dëgg yàlla ku ñëw jël sa doom teg ko ci yoonu diine ah ñun mënuñu leen a fay xale yi ku ñëw ca kër tari ndax fii nekk tey bu ñu demoon tey ci benn école mën nañoo fay weer dañu ne seen bàyyi leen weer du ñetti ñetti téeméer wala indi leen juróomi téeméer te lépp wax dëgg yàlla yéen a koy def ndax dikk ba ngeen dalee am nañu teen am nañu e-, école te loolu yëpp suñu gone mënu ñu ko woon man mii jàng sama seen moo may jàngal nax laa te am na lu ma xam xaw ma ko woon ma lu ma julli xaw ma ko احكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير والضاء العين قرير يحمل فجرا لينير Ce qui m'a remarqué marqué, c'est le nom de, de, de, Nous prions pour, que le bon Dieu l'accueille dans son paradis, eh, parce qu'il fut eh, la, femme de notre eh, cher frère Ogoso, donc il nous a quitté à la fleur de l'âge.

Et vraiment, nous sommes comblés de venir ici participer à l'ouverture de cette école, euh, école donc, que l'association a mis en place dans le village de Je pense que c'est pour nous un, sentiment de fierté nous anime dans la mesure où l'éducation est une compétence transférée. Donc s'il y a des actions entreprises par des ONG ou bien des associations dans la commune, ça ne peut être qu'une réussite, qu'une grande fierté pour la commune et personnellement pour le maire. Donc je pense que vous avez réalisé ici, euh, vous êtes venu pour nous appuyer, parce que c'est de notre ressort de prendre les préoccupations des populations, telles que l'eau, donc l'école, tout ça, ce sont des, des missions qui sont dévolues à la commune. Donc si nous avons des partenaires qui viennent à notre, pour nous aider, je pense que c'est une bonne chose. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولد الرجل بيته فليقل اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج باسمك اللهم ولدنا وباسمك اللهم خرجنا وعلى الله توكلنا ثم يسلم على أهله رواه الترمذي man sama mag di jàngalkat laa bëgg école buñ ko waxé dañuy wax xam-xam dañuy wax sàkku xam-xam sàkku xam-xam ñep xam nañ ne dafa nek farata ci julit bu ne sàkku xam-xam dafa nek farata ci jullit bu ne kon da fay defar jikko dinga jikko moy tax ñuy wax nit kon nañu sante yalla subhanahu wa taala ci xéewal yi ñu xéewale tay ñaan yalla so tay yalla yok yalla na yalla yok euh cheikh donateur donc alhamdoulilah rabbil alamin le projet de d'école de ñek nan a abouti donc tout ça c'est grâce à vos dons Béznillah, Allah nous a facilité tout ça. Donc sachez que votre argent est arrivé, on va dire, à bord et est en train de profiter à des gens qui en ont besoin. Cette population qui nous a connus, qui nous avait sollicité il y a euh, presque trois ans pour un problème d'eau. Et quand on est arrivé ici, on a vu que c'est une population, eux-mêmes ils l'ont déclaré, c'est une population de 237 habitants, mais il n'y en a aucun qui savait lire le Coran. Donc on a vu cette urgence et on s'est dit on ne va pas les laisser comme ça, on va s'entraider avec eux. Qu'est-ce qu'on a fait on a, on a esquissé euh, une classe, c'était une classe provisoire que vous pouvez voir dans les vidéos. Une classe en paille, très fragile, et avec un enseignant, un volontaire, un, un enseignant très engagé qui nous a aidé aussi à commencer à former ses enfants. Alhamdulillah, après plusieurs visites, on a vu que ça a progressé. quand on a lancé ce projet de faire les deux classes, vous avez répondu présent, Allah SWT vous récompensera, biznillah. Sachez donc que cette école a abouti et que ça c'est le début d'un commencement. Biznillah, ce n'est pas une chose qu'on compte euh, arrêter ici. Les sollicitations sont nombreuses. On va dire cette maladie qui manque d'eau, manque d'instruction, ça, c'est latent au Sénégal. Vous, allez le voir dans tous les villages environnants et je crois que M. le maire peut le confirmer. Donc on va, on va Inch'Allah, nous faire de nos mieux, on va encore vous retendre nommer et voilà, on va continuer sur ces projets d'éducation pour essayer de sortir les gens dans les ténèbres, pour les amener vers la lumière. Parce que sans instruction religieuse, il n'y aura pas de lumière, il n'y aura pas de guidée. Donc, euh, redire aussi à tous ces frères sénégalais d'ici et de l'extérieur, que l'idée c'est pas toujours de se reposer sur l'autorité, sur l'État, de se dire ben tiens pourquoi l'État il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ceci. Ah, l'idée c'est d'essayer d'esquisser de ce qu'on peut. Et Allah c'est lui qui fait les choses. Donc si on essaie, là on pourra. Et Alhamdulillah, avec la solidarité musulmane, on n'a pas besoin de compter que sur les Sénégalais. Je crois que la plupart de ceux qui ont mis leur dans ce projet ne sont pas Sénégalais. Pour la plupart ne connaissent le Sénégal que de nom.

ñu bëri si man lañ ko commencé jàng euh, waaye ren alhamdulilah góorgóorlu nañu bu baax bo instant yi xam naa ne alquran sore nañ ci xaw nañ ci sori tuuti ndax jeexal nañu juusu amma bi te mokkal nañ ko tam ah. xadis bi tam jàng nañu ay xadis yu xaw a euh, xaw na bëree tuuti ndax ëpp na fukki xadis ak juróom jàng nañ ko euh, koku da bu ñëwé dina mëna yoré ñi nga xamanteni dañoo tollu ci liir xira amu jangal leen lire xalé yi nga xamanteni dañuy soga dal ak xalé yi nga xamanteni dañuy soga dal لله لله يهفو املي ولحفظ